ak yeneen kuréel yi nga xam yépp dañu jëm ci lo xam day ànd di ñaax di gëna accompagner nit ñi dinañ gëna xol également nan lañuy amé ben processus ben mécanisme bo xam nit ñi dinañ ci gëna a yëg seen bopp parce que tay li am li ñuy wax rareté des ressources c'est un problème réel manam koom bi ak xaalis bi ni mu doon amé amé tuko tay ñëpp gis nañ ne conséquences yi nga xamné fièvre bi indi nako ko ñu ngi koy vivre mais sur le long terme les impacts aussi se feront ressentir ndax euh, croissance mondiale bi yëpp ay lool lepp nak buy ñëw foog mu am mécanisme yo xamné dañ ko wara euh, taxaw dañ ko wara a motax ba loolu aussi lu jaadu la loo xam nek nañ ci dinañ ko gëna a yaatal loolu dafa dugg ci li ñu wax plan de relance de l'économie